wax na rek ndajem solos ndaje mi tey dañu woote woon pour orientation budgétaire ñu woo conseil municipal bi woo chef l' ensemble des chefs du village de la commune de Touba woo association yi des jeunes yi ak groupement des femmes yi ak porteur de voix yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci dëkk bi di ñu woowoon leen tey ci oria invité woon leen ci orientation orientation budgétaire bi ou invité aussi la presse départemental bi nga xam ne ñoom la ñu fi bokkal ci département bi yëpp euh, bu ñu ñëwee nag li ñu def mooy déglu askan ci budget bi nga xam ne moom la ñuy war tëgg muy année deux mille vingt comme ni ko àddina bi yëpp defe ni ko Sénégal defee ni ko ensemble di ko defee ci différent euh, ministères ak différents secteur yàlla dogal na ñoom ñëpp wuy si nañ ñu ci contrôle sous-préfet des Ndaam mi ngi nii toog ci autorité yëpp sécurité publique gendarmerie ak police yëpp ñëwoon nañ ñu déglu askan wi ñam ñëpp kenn ku ci nekk gox bi nga jóge mu dee quartier bu dee village bu dee Porto de va bu dee benn notable bu nekk fa bu dee association du jeune wala groupement de famille wala daayira yi sax ñoom ñëpp ñëw nañ kenn ku ci nekk contribué na wax na li nga xam ne moom lañ soxla ci seen gox yi nekk foofu ak seen jafe-jafe yi bon tenir nañ ci compte bu baax a baax a baax ci liñ wax donc euh, comité technique bi nga xam ne ñu ngi doon jël données yëpp euh, plusieurs personnes lañ ko joxoon ñuy jël ñoom danañu techniciens yi danañu daje tëgg budget bi ci ni ko askan wi soxla jébbal ko conseil municipal bi bureau municipal bi bureau municipal bi validé ko jébbal ko conseil municipal bi conseil municipal bi wate ko ñu jéem ko exécuter dans la règle ci ni nga xam ne noonu la ko def koo tëggee donc di sant bu baax a baax a baax ñi fi teew ñëpp muy monsieur le sous-préfet muy per population bi fi ñëw képp koo xam ne invi ñi ñu invité ñëwoon nga ci daje bi ñoo ngi lay sant di la gërëm di ñaan rek yàlla nañu yàlla may jàmm ba lépp li nga xam ne askan wi tëgg nañ def nañ ko fii wax nañ ko fii danañ ko intégré ci biir ci 2020 li ci xaj bu ci xaj lépp xajee danañ ko ci def bu ci lépp xajul danañ ci def li nga xam ne moo ci xaj li ci des di programme ko année prochaine bi nga xam ne mooy année suivante bi muy 2021 bu fekkee équipe bi la bu fekkee beneen équipe la ñu xam ne lii moo nekkoon prioritaire de la population de la commune de Touba. monsieur le maire mbirum Pakaseen ñu jukki ko li ni mel aussi mu mel ni mbirum sécurité soxal na lool askan wi ndax mën nga dellu si si ñaar yi ci dëgg la li nga wax sécurité ku wax rek tudd na ko ku wax tudd na ko ba tax na euh, ñu ngi koy dund xam nañ li population bi soxla moo tax bi may ubbi sama wax loolu laa ko ubbee ci contrôle sous-préfet. ci contrôle gendarmerie mi ngi fi ak police ñoo xamal leen ne leen sécurité bi ñu ngi ci nañu ci jéem a dolli renforcer ko suñu kem kattan ndax actuellement ku nekk dégg na Touba problème yi bari na dégâts yi bari na fu nekk koñ bu nekk chaque jour chaque nuit nga dégg problème bu xew donc wala attaque yu ñu def loolu aussi fekk na barki démb waxtaan nañ ci ak sous-préfet mu pour mu convoquer benn réunion sécurité publique boo xam ne day woo police ak gendarmerie ak commune ñu bokk ci toog waxtaan ñu xool ñoom nan la ñuy def ba nga xam ne danañu mën a liggéey euh, def communaux maanaam liggéey ñoom ñaar ci point sensible yi nga xam ne identifié nañ ko ci dëkk bi te li ëpp ci dégâts yi fa lay xewee pour ñu mën a sécuriser population bi ci loolu